juróom lu bëccëgu Ligue de Sénégal ci wàllam jigéen ñi amal nañ ko ci jeexitalu bés bi te stade Eliminel Fall fukki fan ak juróom-ñeent ci weerab mars 2023 AS Bambey doon fa dalal GIA bu fas di juróom benneelu bëccëg boobule nga xam ne nag moom di AS yi moom moo nekk première ci pulam ñoom day xale yi mbayang caam yi xaaruñu sax match bay diire lu miti ndaxte deuxième minute ba la dosaar numéro 15 bi di Rama Badji daal di taal caax Cerno ka noonee xale fas yi daal dellu ginnaaw ku markaas ba waaye nag ca dix ba Bambey yi am na fa ab coup boo xam ne Aram Thiandoum moom moo ko dóor arbitre bi tiré ko de waaye bal boobu de ñëpp xam nañ ne ca biir kaay la mujjee yaa ñu découragé ndax seen deuxième bii ba ñu ngi koy dugal ba jongante bi amee fanweeri simili ak juróom kii di Rama Badji moo fa jaaraat mu nekk ab dubleem ci journée bi ci ab bii bu rafet lool. bañ demee ca mi-temps ba ba ñëw coach Mbayang Thiam ak ñi mu àndal mel ni dañoo gën a xabtal xale yi ndax dañoo dikkaat rek. ci buñ amee juróom fukki simili ak benn la kii di Khadija Sène daal di taal caax ya ci ab bii bu rafet lool. bañ jongante waatee ba am juróom benn fukki simili ak ñaar ca la Adel Mendy daal di doggale gaaya ak ñeenteelu bii ba. waaye nag mbir ma jeexewul foofu ndaxte ñii di xale yi dañoo gën a xabtalu bañ amee juróom-ñaar fukki simili ak juróom ca la Khadija dugalaat cinquième bi ba mu nekk dubleem jongante boobule mu nekk juróom benneelu jongante bu AS Bambey yi ci jigéen ñi ñu am ca juróom benn ndam ba pare nekk ca kaw mu mel ni nag ñoom ñii lee di xale mbayang yi seen gët fañ ko teg rek moom moo di monter ngir indi ndam loolu lee ci biir Bambey bégal seen président ma Abdoulaye Fall